lu mel ne tey transport euh, mi ngi daw mais boo xoolee taxi yi da nga gis taxi bu daw ba ngoon day équilibré wala mu daw ba ngoon xaw a perte tuuti léeg-léeg buy am gain lu tuuti lay doon secteur interurbain nga xam ne ñetti xeetu oto ñoo def sept places kaaru minicar yi ak kaaru bus yi yooyu taxaw kon amatuñu yenni yi ni i chauffeur ko moom yenn yi patron yi ñoo ko patron yi ko momit dañ leen di demander ñu am le sens de la responsabilité xool naka lañu wara war ak parce que état am na cër ci mbir mais état ñun la sans ñun état du nek donc li ko ci war mo ñu ci war et un même niveau d'engagement lu mel le tey par exemple transport urbain au Dakar bo xolé nombre de places assises yi ñi jox auto yi ko ko ci respecté mënoo def profit la nga gis ku daw ne ngoon du faire de fay gasoil mais je dis que ni ni daw xëy na nañu ni même si les pertes affectées affecté les les wala bu leen dee affecté après sur le plan de relance du président Tech, ils ci mën pas bénéficiaire ñun moo au niveau de la CATRS le secteur poids lourd affecté wul parce que mon rek nous permettre aujourd'hui de def le transport de d'une région à une autre région